yenn saa yi tamit ñu woowee leen lu ñu ak tur bu mu mënti doon mais daal ñoom li leen tax a jóg daal mooy euh, am na benn livre bu muy bu may lire bu tudd alchimiste de cœurs hmm? ñoom mën nañ leen mën nañ leen a tuddee noonu euh, tey nag euh, ñu am thème bu am solo bu ñu war a waxtaanee muy l'importance de la croyance en la wala l'importance de la confiance en Allah dans le développement personnel loolu dinañ ci ñëw indi ci yaatal yu yu yu yu yu yu yu yu yaatu euh, ma dalal nag ki nga xamni min ngeen ko ci plateau bi wéru wu nek mak mom ñu wara am plateau parce que ñun ñu leen ko dik muy euh, docteur Abdoulaye Idrissa Dieye ah, nga xamni euh, nek enseignant un socio-économiste planificateur enseignant chercheur titulaire d'un doctorat de sociologie à l'université Gaston Berger et d'un doctorat d'anthropologie à Paris 8 ndaysan da ngay def émision maître gars yi di la woo rek waaye nañ ma jéggal ah kii di ma woo nii <laughs> xam naa ni mi noonu maître ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax sañ Pape. di nuyu kilifa diine yi. Mhm. toujours foofu la ñuy tàmbalee. ndax réew dafa am lu ko laytaay di si jiital cheikh Mouhamadou Mouniru Ndiéguène yàlla na fi yàgg Serigne Cheikh Mountakha yàlla suñu borom feqi fanam. Mhm.

ñaan ñu ni daal faaw ñu may ko mu jàpp si moom it mu jàpp si jàppin bu rafet. Mhm. ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu mbokk yépp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. aywa jërëjëf en tout cas am naa mbégte ci ci ci ci ci dalal la maître ci plateau bii di entretien avec nga xam ne mbégte laay am saa su ne di ko di ko ànd ak yow maître tey ñu war a waxtaanee euh, l'importance importance bi nga xam ni wékku ci yàlla am wéeru ci suñu borom diis ko say mbir. nga xam ni moom rek ngay def garant ndax dafa am lu mu waxoon ni lan yusibana illa ma kataballahu lana ah ne que ce qu'Allah aura prescrit pour nous uh-huh. bi ci desit mooy wa man yatawakkal ala allahi fa uh-huh. mu ni képp ku wéeru ci man def ma dëgg-dëgg ndëgër laay ma doy la sëkk uh-huh. te nag importance sam la ñu war a waxtaanee ngir ci biir développement personnel waaye nag ci loolee itam dama bëgg ñu nga ñu ñëw faram-fàccee lan mooy développement personnel. Uh-huh. en tout dégg naa ci baatu développement. Uh-huh. dégg naa ci baatu personne. Uh-huh. lan mooy développement personnel maître. waaw sëñ Pape euh, ginnaaw bu ñu gërëmee ñépp di la wax ni ku jàppul si yàlla si lan ngay jàpp. man de question boobu rek lay posé wu. ku jàppul si suñu boroom si lan ngay jàpp. walla ku jàppul si yàlla si kan ngay jàpp. seigne pap japp ci lanen luddul yalla mu ngi melni nit ki japp ci genu fas mm-hmm. insha allah bis bu ko mm-hmm. dina bor ay bëñam te de fa lay jaare ndawal ila yow mm-hmm. kon wékku ci yalla mo wóor japp ci lanen luddul yalla mu ngi melni nga japp ci genu fas bu lay wéq dalay bet te bu la amana am nga am lo xamni dula neex parce que ndawal mom fa ngay araamal ko illaa yow mi diin rawatina nag bu la fekkee nga sant saar li ma bëgg a wax foofu mooy sëñ pap àddina bi dafa naqadi ku ne xam na ni àddina naam musul neex naam musul nooflaayu noppale musul noppale waaye nooy def yàlla suñu borom mi nga xam ni dafa sàkk univers te tegu fi tànkam moom yàlla So amoon fu tek tankam si xol yi lay doon wala wala mhm. way yalla tegul si kaw suuf waye sak doomu adama ne ko yow doy ngi sama ça ju baax ñukoy wax Idrissa Ndour mu ngi si sal bi di ko ko ma yabal la fo xamni yow fay representer yow yaay doon sama représentant mhm. muy si kaw suuf mhm. donc l'individu est le représentant le khalife d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre c'est le représentant de Dieu sur terre la terre est lieu incertain frivole bu dangereux bu obscur bu insaisissable C'est adina Adunya, je connais ne c'est ni day luy jeex luy jeex adina day jeex ya ni ko kay représenté ma représenté président Macky Sall rek dafa 10 asamaak représenté yalla suñu borom kon nga wëlbatiku ponkal mu toll noonu nga ne dang koy wuutu ci kaw suuf malaka yi taxaw ni deet du ci dal seytaane taxaw ni deet du ci dal yalla ni len deet dina ci dal su ngeen moy moo mo effacer len top len fofu suma décider suma né nee tooy na nee leen xepp su ma nee wow na nee leen koŋ loolu moo leen di noppal képp ku bëgg a noppalu bu yàlla nee tooy na neel xepp bu yàlla nee wow na neel koŋ loolu moo lay noppal mhm. kon ba yàlla ne damay yebal doomu aadama si kaw suuf pour mu représenté ma malaaka yi dafa si am ñoo xam ni waa kii nga xamante ni sii maanaam ñoo ko gën ndax si leer nga ñu sàkk seytaane taxaw si nii du si dal ndaxte moom si leer lañ ko sàkk te ñun si argile ban min turab min turabin si la ñu

joxoo ko fetal joxoo ko jaasi joxoo ko paaka joxoo ko benn munition mu démuni ñun noonu nañu wàccee si kaw foofu mm-hmm. maanaam mission bi dañu xaar te jumtukaay zéro loolu yóbbee yóbbee ñu si nii ñu wëlbatiku nag zaakal fasaad ah zahral fasaadu zahral fasaadu fil barri wal baxri bima kasabat aydi naas la yàlla suñu borom wax ni manam nañu univers deux grandes barbaries entre le sommeil mondial. Mhm. muy jël nañu def ko amul da ngay yor buy am da ngay mhm. le mieux-être détruire ko substituer ko à un bien-être le bien-être il est béat il est momentané il est superficiel il est cosmétique le bien-être tandis que le mieux-être il est durable il est pérenne il est constructif. Nous nous le mieux-être et ko le bien-être su ma bien-être sëñ Pape mooy profit mooy argent gain facile et rapide. Mm-hmm. quel est l'objectif de la mondialisation c'est le fait mm-hmm. c'est le fait de gagner plus encore plus et plus vite mm-hmm. le but de la mondialisation du capitalisme et du néolibéralisme c'est de gagner plus encore plus et plus vite muy les deux barbaries la barbarie du néo-capitalisme et la barbarie humaine donc doomu sou suufee sëñ Pape di di tasaare wëlbatiku nag di fóot ay yére fàtte fóot xol di eau de javel ay yéreem fàtte eau de javel xol mm-hmm. mu yóbbe ñu maanaam ay jikko yu suufe nga xamante ni si yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla suñu borom moo ma yar waaye bi ma yaree dafay rafetal sama yarin adabani rabbi fa ahsana tahdibi la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax mm-hmm. kon pour ñu nekk al insanul kaamil bi yàlla yaakaar si ñun Seigne Pap. pour ñu dem ci istatiwu al insanul kamil. l'homme total l'homme total dont parlait Garodi très Garodi, bien oui. il faut passer par le développement personnel. Hmm. développement personnel science là. Bon xam ni pour nga dem ci homme total il faut nga jall ci. ci développement personnel développement personnel mënut développement personnel moy autoroute. moy pont bi lié al insan ak al insanul kamil Moy pont bi moy autoroute <laughs> <laughs> maanaam nit al insaan al insaan ak al insaanul kaamil ak al insaanul développement personnel mooy pont bi leen lié. parce que si biir développement personnel dafa am tarbiya dafa am tarqiya dafa am tasfiya mu ngi si biir développement personnel et le développement personnel est une science qui est issue des sciences humaines et sociales en général et de la psychologie en particulier c'est ça qu'on appelle le développement personnel c'est Pape du ay gars yi dañ koy nous les africains mais développement personnel doit ay caaxaan hmm? bañ est dans les entreprises nous recrute recruter un coach en développement personnel pour que vous compreniez, ça nous évite le turnover ça nous évite la flânerie ça nous évite le stress ça nous évite l'épuisement professionnel nga savez, les nit ki dafay nekk di rectifier et corriger sa humeur ak mental et di les dopé di permettre ñuy surpasser wu ak dépasser leurs limites le développement personnel kese moo ko man xanaa xamoon ni diine ak développement personnel dafa am lu ñu muy la construction de l'homme total la construction du al insanul kamil muy l'homme presque parfait quasi parfait mhm. Koku moy ki nga xamni ni mom la yebalon ci kaw suuf ni ko demal nga représenter ma waaye bi mu ñëwee dafa faté mission bi nek ci nafs faté mission bi nek ci liko neex faté mission bi gëm xaliss faté mission bi te ab wóolu yàlla daf ni ma chaque seconde bul jug si di fàttaliku sa borom bul toog mu ko benn seconde boo xam ni fàttaliku maanaam fàtte nga yàlla suñ borom mi la sàkk imaamu Shaafi bi ñu ko laajee lu mu wax fàttaliku yàlla bàkkaar la. waaw ne ko déet imaam fàttaliku yàlla nu mu mënee doonee bàkkaar mu ni ki la sàkk def la li nga doon man lépp féete fépp di sa kilifa sant la lim la sant boo demee sàgganee ba fàtte di dox sa diggante ak moom kon fàttaliku day mujj nekk bàkkaar. Mm-hmm. le rappel constant permanent d'Allah subhanahu wa taala xel pour jéem un tak parce que bala ngay vous da ngay xam bo xamee di nga bëgg so di nga <laughs> so di nga di nga donc le développement personnel. Uh-huh. le développement personnel développement personnel c'est mooy day fekk nit ku par rapport à ay ambition day fekk nit par rapport ak ay objectifs, les day fekk nit rire, xam ni dafa réer xamatul fu mu jëm day fekk nit koo xam ni dafa crise, perdre le sens de sa vie Ce n'est c'est pas parce que j'ai les yeux grandement ouverts que j'ai le sens de ma vie. que je connais le sens de ma vie. perdre le sens de la vie. perdre le sens de la vie mais day arrivé nit. Ah actuellement en ce 21 e siècle 7 milliards là mais boo deful donc, plus des deux tiers de l'humanité ont perdu sëñ Pape le sens de la vie et le développement personnel est là pour nous rappeler le sens véritable de l'existence humaine loolu du ay jaaxal mhm. loolu mooy développement personnel maanaam mhm. développement personnel dafa doon science boo xam day manam liguey ci xel di liguey ci mental di liguey ci moral di liguey manam ci habitude di liguey ci attitude di liguey ci jikko di liguey ci manam manam manam al khuluq muy ay xol defar xol bi eau de javel ko ba mu set wecc ba nit ki xam boppam moo koy may xam boroomam walbatiku nag xam li ko war digganteem ak boppam xam li ko war digganteem ak ay mbokkam wëlbatiku nag xam li ko war digganteem ak Allah subhanahu wa taala développement personnel daal si gàttal moo lay juboolee ak sa bopp مولاي خاملو سو بوب جوبول لا اك سا بوب خاملو لو ساي مبوك خاملو لا لي وار سا ديغنتي اك نيوم ديلا سا خيرتال واي ديفلوبمون بيرسونيل مولاي خاملو سو بروم خام لي لا وار سا ديغنتي اك بروم اك سا بروم تا ديلا سا خيرتال ساسوني كون ليكو جيتو موي خام سا بوب خام سا بوب سيغ باب مي مي مي ميتر نان لا نيت دي خامي بوبم خام سا بوب خام خام اي بي سا بوب لوم لاي جارين واي تاميت نان لا نيت دي خامي بوبم اوسي خام nga خام نيو باري نيو غي ديف اي ايرور xoolal la cause principale mooy juste dañu xamul sen bop. seen pap toujours ma ni mission da ngay xam li ngay dunde bala ngay xam li ngay dundal man bala may xam li may dundal Dama wara xam li may dunde ba noppi lan nit ragal yalla ngay dunde nit jaamu yalla ngay dunde nit zikr ngay dunde nit fikr ngay dunde muy le souvenir constant la subhanahu wa taala est-ce que tu sais que depuis que nous avons omis depuis que nous avons occulté la dimension spirituelle de la vie c'est aller tout droit vers le chaos. ah bon vas-y dans les pays occidentaux ils sont en train de recruter des coachs vas-y dans les pays occidentaux ils sont en train de recruter des clowns dans les hôpitaux vas-y dans les pays occidentaux ils sont en train de créer des curricula allant dans le sens du, côté spirituel de, la vie de la dimension spirituelle de la vie va dans les pays occidentaux nous, xoolal de ñu matière nous ñu physique raw ñu raw ñu si mais si walu batin, ak si walu sens caché des choses ak si walu spiritualité ñun ñoo nek sa kanam légui nak ñom dañoo dem ba convaincre si ni nit mënul dund nonu ta xamul le vrai sens caché de la vie ñom nak ñu ngi ci door ag alors que ñun dépassé nañ ko. si boo xoolee suñu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall liggéey bu rafet bi mu liggéey. suñu mam Serigne Touba Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène Seydi Hadji Malick si ruu lañ dan liggéey mais pas si yaram même dans les pays asiatiques aussi egg sax fo xamni légui dañ ni mom nit faaw nga am lo gëm. exactement manam il faut que gëm dara moom. il faut que gëm dara sëñ pap maintenant nak maître lan nan la nit di di liggéey ci boppam. Mhm. nan la nit di liggéey ci bopam xam nga damay faral di wax nan tu as posé une question très pertinente sëñ pap nan la nit di liggéey ci bopam xana xamoon ni pap nit c'est un c'est un c'est un univers infini incommensurablement important nit. Mhm. xana xamoon lepp mo ngi centré wu ci nit. La base de la vie est en l'homme. La vie elle-même est en l'individu. Mhm. te nit du ay muscles, toujours moi. en développement personnel la personne ce n'est pas seulement une sommation un assemblage de squelettes. Hein, de muscles de nerfs ça va au-delà maanaam nit bopp la sëñ Pape mhm. nit bop la moo tax nit kenn du ko gagne. nit ko amul njariñ amul yow ya xamul noy def ba jariñoo ko hmm? nit ko amul amul mais yow ya xamul yone yi ngay jaar ba am njariñ ci kooku motax développement personnel nak mo lay ñew xam loolu dayé adina ak li la fi indi xam loolu dayee doomu adama moy kan ak li la fi indi parce que nit do jël sa digënté ak nit rek def ko muy manam ben ki, kii boo amul dara mais déedéet sa digënté ak nit ma la ko fay tek bo bëggee juboo ak nit ñi amal leen njariñ jalla jalaluhu subhanahu wa taala ngay jël tek ko sa digënté ak nit ñi di def ndax ñoom euh, di leen defal ndax moom di leen yërëm ndax moom di leen muñal ndax moom di leen dimbali ndax moom ak am la sens de la hauteur et du dépassement ndax yàlla suñu borom mi nga xam ni moo leen sàkk tey jii nii su ma ni woon oto Pape Thioune bi dafa dafa ñaaw waxuma oto bi sëñ Pape laa amal affaire kon nit boo boo ko attaqué frontalement wala nga xeeb ko yàlla suñ borom nga amal affaire sëñ Pape nit ni ngay xamee sa bopp mooy nga xam ni déjà li ëpp si àddina bi te am njariñ mu ngi si yow muy xel xol yaram ruu dañuy tere ñu waxtaan si duñ si sori waaye nit mooy lépp. lepp lu bax ci adina nit moko fi taxawal moko tabax waye lepp lu safano nak lu nek ci kaw adina nit c'est parce que le ça a été colonisé par le euh, c'est parce que le moi et le surmoi ont été colonisés par le ça que nit di dugg dans des dans des dans dans des effets pervers dans dans des dans des excès manam xamatul liko ko war wëlbatiku courir complètement yaa ngi dégg perdre le sens bi ma wax de la vie légui nak ni ngay xamé sa bop moy nga marquer un temps d'arrêt marquer marquer un temps d'arrêt sëñ Pape. des fois dans la vie il faut savoir s'arrêter. maanaam nga jékki-jékki xamatoo foo jëm. nga taxaw nga taxaw tekk sëñ Pape taxaw dafa baax. bañ nañ ko ba sax. Mm-hmm. bañ nañ ko ba sax si autoroute yi booy dawal dañ naan la toutes les deux heures de temps mais marquer un temps d'arrêt. Mm-hmm. ça permet de désembouteiller l'esprit de désengorger le cerveau de de de l'aérer et de lui permettre de respirer et avoir un nouveau souffle en vue de courir mieux vite et beaucoup plus vite.

nit ñi dar ko mbumbaay mi topp ko ku nekk bëgg koo jox loxo ku nekk bëgg mu añee sa kër kooka mas naa wéet si àddina ba mel ni néew ni muy wéete si biir bàmmeel toujours ma wax ko maanaam waaye c'est dans cette solitude là c'est dans cette maanaam euh, euh, recherche permanente de sa personnalité parce que sëñ Pape yàlla sàkkul personnalité ma wax la lu mu personne. personne la sàkk personne la sàkk sàkkul personnalité léegi nag la personne moom moo war dem. wutali boppam personnalité. waaw boo nee may kan ku lay tontu. yow yaay tontu sa bopp. may kan may kan man maay tontu jékki-jékki xamu ne da nga réer nga dellu si daal ni man may kan léegi ku lay tontu. xanaa xamoo jamono ji ku nekk war nga toog taxaw ma marqué benn temps d'arrêt ni fu ñu jëm. mais ku lay tontu. waaw mais. yaay tontu sa bopp. du yaay tontu sa bopp sëñ ba xanaa xamoon ni suñu kër yi léegi max la luy problème bi amatuñu cour ay couloir la am sëg yi lee euh, kër yi léegi ay sëg la c'est des cimetières masqués.

c'est cette vie là africaine que nous avons perdue saint Pape. et les nag doomu aadama ni ngay xamee sa bopp mooy del wéet saint sëñ Pape dafa war di on est trop embouteillé et perturbé par les eh, les sonneries des téléphones les musiques les les séries hein dans les télévisions hein les baptêmes les cérémonies hein hein, euh, hein la dimension hein euh, accessoire de la vie hein les choses mondaines Nous sommes ba léegi nak yow manam nit ki nit ki dafa distraire mhm. léegi nag bi distraire bo nopi fa la jaar nak légui perturbé et perdre le sens de la vie Motax des fois il faut savoir s'arrêter mhm. il faut savoir s'arrêter Seigne Pape et quand on s'arrête comme tu l'as si bien dit on demande à soi à sa propre personne qui on est en réalité qui suis-je qui suis-je qu'est-ce que je suis venu faire dans ce bas monde C'est une question importante. c'est une question fondamentale sëñ xanaa xamoon beaucoup d'individus courent vite et dans tous les sens mais ne vont nulle part. <laughs> beaucoup d'individus courent très vite vont dans tous les sens mais malheureusement ne vont nulle part max la def errance ils sont dans une dynamique d'errance mu ngi rek ay xar ak ay beuy yo xey yewi teki, bàyyi len ñuy divaguer ñuy aller dans tous les sens mais nit boudé yow yaro da ngay yafal mais yaa dougal sa say dom ci errance mais boudé nak yow manam yafaloo da ngay yar yaa wax sa njabot ñoy kan dinañ xam lan lañu xam ci adina lan moo si seen devoir lan moo si seen cër lan moo si dul sen tiet il faut qu'on retourne à l'éducation de base. nga tontu sa bopp ni kon kon donc li ci bëgg li ci mëna liñ ci mëna jangaté moy nit ki mm. da ngay wara xam yow yaay kan. Mm. xam li la fi indi xam li la koy may xam li la koy xañ. effectivement buñ ko doon résumer effectivement nit ki da ngay xam yaay kan xam li la fi indi si adina, xam li la koy may xam li la koy xañ boko xamé rek xoolal l'équation magistrale de ta vie a été résolue et fondamentalement ça permet de nous réconcilier avec nous-mêmes de nous réconcilier avec nos semblables et la société et de nous réconcilier avec Allah le créateur suprême Allah subhanahu wa taala su ko defee jàmm daal ni ñoy bu ko nek xamé li la war bu nek xamé sa bu ko nek xamé sa bop xam yaay kan xam li la war nek sa non defé na ni ciow du bari lolo tax ñuy waral ñuy bañ manam nit ki di am jot

loolu moo la yóbbu fa nga jëm mooy wéeru gi nga wéeru ci suñu borom xam ni ku dul moom mënul lor mënul jariñ an nafahu wa durru min arrahmaani laysa min assudaani wal bidaani effectivement sama baaba dafa ma wax ni ma pap ma ne ko mënuma nit ñi ama nekkal ak ñoom nekkin gu rafet ma ne ko waaw mënuma mais au fond de toi ma ne ko waaw mënuma tourne leur le dos ma ne ko lu tax mën na parce que Sëñ Tuubaa nee na an nafahu wa durru min arrahmaani laysa min assudaani wal bidaani parce que lor ak njariñ jógewul ci kudul suñu borom kudul yàlla mënul lor léegi nag confiance boobu nga war ci moom pour mën a dund dund gu ñoŋ ci àdduna ñu ñëw ci loolu maître. Mm-hmm. Serigne Mounirou Ndiéguène Al alxalifa yàlla na fi yàgg te wér damay faral di dégg si ay waxam mu naan bakkan ak wërsëg yàlla joxu ko kenn. bakkan ak wërsëg yàlla joxu ko kenn. da koo téel boppam si loxoom bu tedd bi. ñu ni kon lu tax Ndiéguène Mamas mu ni bakkan. bis bu ko yàlla dénkee doomu aadama ku mu mere jëlee la fi wërsëg bu ko yàlla dénkee doomu aadama ku mu mere daal di lay xañ wallaahi yàlla nag di récupérer ñaar yooyu daal di koy ngëbal boppam si loxoom bu tedd waaye waxaat ko ay maître doomu aadama war de wallaahi bu fekkoon ne yor wërsëg yi kon maari day taali moo tax yàlla ni wërsëg ak bakkan su ma ko dénk kenn man yàlla maa koy gérer sama bopp ñu ni ko waa jalla jalla la woo lu tax mu ni su ma ko dénkee nit xamna nit mako ko defar maa ko sàkk kenn gënu xam bis bu ma ñaar yoy doomu adama. Kumu méré mere la fi kumu méré xagn la kon ma lank ñaar yoy du ma ko jox kenn wa lu fi jar ciogu lu fi jar der pour positionner wu ndax gis nga place bo mënti tok del ko sa xel dar d dak wala d a affectation mhm. r retraite fo mën di tok chaise bo mën di tok ci adina

wala dañ lay lor ta du nammeelu yalla sen pexe day naxay wallahi mu la plume de Dieu est déjà séchée. Wallahi. yalla yalla limi bind bind nako demb tay door destin dafa am kon nee na bul jaamu wala ngay lu ci kenn ku dul denga nga de. tawxiid daal di duggu mënoo wékku si yàlla te xamoo yàlla suñu borom ku xam yàlla xam sa bopp. wallahi ndeysaan boo ko xamee nag ba noppi moom yàlla suñu borom sa beauté sa majesté son élégance. son incommensurable beauté daf lay éblouir ba maanaam yow dangay ngay nag di xam sa bopp léegi nag boo boo boo xamee yàlla danga koy gëm boo ko gëmee da nga koy bëgg gën koo xam bëgg ko soo ko bëggee da koy nongul si service am rek ngay dox maanaam sa xel dootu si jug illaa yow mi diin kana déggoo ñu naan yalla na yalla fatali boppam ndax ku yalla fatali Cheikh ko ku yalla fatali boppam rek doto ko faté kon yalla na yalla fàttaloo manam euh, maanaam fàttalikuloo boppam bi mu ni maanaam bu ñu fait ni dañ lay lor duñ si arrivé kon néna destin lu am la yalla tracé na ko tay a néna na yow fo tollu na nga lu moy si yalla suñu borom mi nga xamni le maître des destins et des destinées mais lolu señ pas boko xamé loy ragal dara doo ragal dara wallaahi alazim doo ragal dara ndax xanaa xamoon ni wóolu yàlla yow noo fii bàyyee koo xam ni day jeex di ko jënde ku dul jeex maanaam yow nooy wekkoo si koo xam ni dafiy jóge di ko jënde koo xam ni il est éternel wallaahi alazim yow nooy yaakaare ku yorul tus di ko jënde koo xam ni du jeexal yow nooy yaakaare koo xam ni day toxu day toxu day faatu nga di ko jënde ko xamni du fi juk yow no yaakaare ko xamni amul dara même ay soxlay bopam ko satisfaire nga ko yor du jeex te wu le dara bu bi bu doon da nga jël soxlay doomu aadama yépp daal di koy à la même minute à la même seconde mu ngi mel nga jël maanaam suufu puso daal di koy samp si ndoxu géej boo génnee lay takk sa puso ba loolu la faje soxlay doomu

nee na na la ñaar dal yéene ko ko waaye wëlbatikul ñaan ko yàlla mi ko jox ndax jomb la si Pape na nit ñi delloo si delloo si seen xel si yàlla nañu wékku si yàlla nee naa la wékku si laneen lu dul yàlla mu ngi mel ni nga jàpp si gennu fas gis nga bu lay wékk non seulement dalay bett te bu la wékkee dina boor say bañ nga araamal ndawal illaa yawmi diin kenn du wékku si dara wala kenn ku dul yàlla suñu borom tawxiid sax daf koy tere kon yàlla boo ko xamee di ko gëm boko ko ding ko top boko ko doto wéku ci keneen ku dul moom boo xasee ba ngoy ci mom sa xel dootul génn ci mom waaye sa xol da koy fees ba doto bëgg dara lu yalla suñu borom la vraie liberté c'est le fait de se de se départir de toute attache terrestre allant dans le sens de l'amour des enfants de nos épouses des des biens matériels et et et, et périssables léegi yow su ko defee yow sa xol fay dégager. max la lan mo ci nek nuurullahi yàlla suñ borom daf koy fees dell léegi nag su boobaa <laughs> ban jeexital lay am. Oh. mooy say cër dootoo si def lu naqadi yàlla. Mm-hmm. bi is ñii ta taatillaahi dafay daal di ñëw. boo bëggee yàlla danga koy daal di topp nag. saw taw te boo ko toppee sa loxo dootoo si def lu naqat yàlla dootoo jël alal jàmb sa làmmiñ dootoo si yàq deru gor dootoo si wax lu ñaaw waaye say bët dootoo si xool sa fan say tànk dootul dox jëm si kenn wala lenn ku yàlla subhanahu wa taala su boobaa nag al insanul kaamil bi développement personnel taxoon na jóg day daal di dugg te mu may la sakina muy quiétude te mu may la sakina muy quiétude xanaa xamoo dal googu boo ko nit a ngi si de sëñ Pape waaye mu ngi bàyyi xel buntu kër gi ak ku buntu kër bi zikrillahi tatma innul bu bunt bi frappé woo mu ni waaw kokkan la seetal loolu numu parce que jiyee jamu dafa tax foog na ni digga ñëw bëri na ko nek ci kër fenêtre sax bu frapper. mu dadi mu dadi di lolu lan la kooku kan la foog na ni digga ñëw ndax ndombe jamu def kooku amul shakina parce que djubul max la shakina lan moo koy may la droiture muy la rectitude comportementale mooy nga xam li nga moomal sa bopp nekk sa nga xam liñ la boole doo sa laal liif te séqoo woo diisoo ak ña nga ko séqal ak li sa yoon nekkul sa kii na te regarde pas loola doo sa dindi doo sa def ndax loola moomoo ko xamoo ko sa yoon nekkul si te ñetti dimension yooyu tant que nag maanaam nu mu tudd xàmmee wuñu ko benn bu si nekk ñu jox la cëram rek su boobaa dafay daal di mais mais suñu wëlu yàlla yi cër bi ñu am lan moo leen ko may wékku si yàlla yaakaar yàlla wóor

mais attends c'est paradoxal parce que Dieu ne manque jamais à ses promesses il lu mu le dina ko def bu nee dem vous dina dit def avez bu que nga signé dit que vous la que vous avez dit amul dara ni dundal que vous avez dit que dans leur c'est le bénévolat absolu sëñ Pape ma jógee ci daara ji. dem ci jàkka ja lu fa nek jàkka ja dañ fay jaay orange jàkka ja dañ fay séddale ndawal jàkka ja dañ fay bay ceeb déedéet jàkka ja je parle de manière temporelle dara nekku fa mais mais nga sax ci jakka mais lolu kan mo lay dundal foo jëlee li ngay topato sa njabot lolu moy ci yalla ak yaakar yalla ak wóolu ko mooy tax nga mëna nek nitu jàkka mhm. troisième dimension bi muy tol ya seigne Pape tolé da ngay jël li nga gëna bëgg dal di gas ci souf seigne bi dal di koy duggal dal di koy enterrer mais wan ko ginnaaw bàyyeekook sax yi bàyyeekook pesticides yi bàyyeekook insectes yi mais lolu wolu yalla mënu ko weesu mais loolu lu ci yalla mënu ko weesu yow amo certitude mëno dor sur le Saint Coran que ni nawet bi dina baax mëno dor sur le Saint Coran que ni man dina am les meilleurs rendements et pourtant les besoins financiers à satisfaire sont là ils attendent yaa ngi dégg war ngaa fay si jiw war ngaa fay koppe war ngaa fay seko mais war ngaa jënd xaru tabaski war ngaa wodd njaboot gi la jàppale si tool yi ba nawet bi jeex war nga dem li leen tissu comme ni ko mag ñi daan def mais loolu lépp foo ko foo ko yaakaar ginnaaw yàlla si jiw bii nga xam ni moom nga suul te wóoru la ndax ndax dina taw. <laughs> yéemi nga wax def ci sa lépp. def ci sa lépp wan ko ginnaaw wan ko ginnaaw. te wóoru la ndax dina taw waaye ko wékk. wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuh. fa huwa hasbuh. <laughs> in allaha baaligu amrihi. mais ji mais mais est ce que yaa ngi may est ce que yaa ngi may loolu dafa kawe. loolu dafa kawe donc Seydi Hadji Malick si ñett yooyu la nekkoon. daara ja jàkka ja tool ya ñoom bañ nañ ko ba saa yu ñu daan jëfandikoo la ñu bayal seen bopp lam leen di saf du bokk ak lu leen seen paptur mi jox. ndax maanaam lu jël ak maanaam wóolu yàlla ga dafay jeexital si jiw gi ak li muy produire da te yàlla dafa neex. xam nga suñu borom dafa neex léegi nag loo waral yow li nga liggéeyal sa bopp suuxatal ko sa bopp toppatool ko sa bopp boo koy xéwloo du bokk lu la seen may parce que la lay dafa saf sàpp ak yàlla suñu borom yàlla sens spirituel mm-hmm. mais boo ñëwee si tafsir El Ahmad Baro mais moom bi muy jógee Saloum mm-hmm. mais dafa waroon na toog dafa waroon na si les héritiers du du trône et du roi bëlëb saa ndeene mooy maamam dafa gedd nguur gedd àddina geddu lepp lu jëm ci walu alal dom soxna xaalis adduniya la ce bon monde est de la sarogne qui est destiné aux chiens errants sam ben mam da ko daan wax moytu len adina te màndargay bëgg adina ñent la bëgg nelaw bëgg ñam bëgg soxna ak bëgg khalis donc nit ñent yoy da ko wara moytu c'est ce qu'on appelle les attaches terrestres manam ñom dañ lay jéng téye la mënate la ce ruu kenn du ko éduquer sa ruu est du ko purifier sa ruu du mën a élève du élever parce que dafa am ñeent yooyu ñoo ko c'est ce qu'on appelle les attaches terrestres mais boo ñëwee si fait Ahmad Bara Ndiogène mais bi muy ñëw fii fait Thiès mais mais jugee ay ancêtre plus de 400 km jaar par Tëngéej def fa 20 ans ñëw fii Thiès nekk fi missionnaire taal lampul islam yi da daan wax naan man day Amady Baro lépp luy xëccoo bokkuma ndax kat xëccoo moy cëram bu wul du seddu

Traverser goudron bu ñuul kukk sol yére yu tal. tàll génn weex tàll alaaji Modou Ndiéguène waaye ba muy dem dafay bàyyi xalifaam bi nga xamni ni <laughs> soxla <laughs> Cheikh Mouhamadou Mouniru soxla yépp mo koy fajj machallah allah dëj moo si man ngenté mo si man problème euh, kii euh, dans la vie courante des citoyens mo si man te jugul pliane bee nga xam fa la ko bayam euh, dicc ndax papam daf ni ko togal fi lepp dina la fi rek mais liko dikkel ci ay jafé jafé ak ay nattu ak ay problème bu doon ku yox yox yi takk na ay bagaasam daw bàyyi fi pliant bi bàyyi fi responsabilité bi daal di dem waaye wóolu gi mu wóolu bàyyam te wóolu bàyyam mooy wóolu yàlla ndax yàlla ndax bàyyam wasilaam la sëriñam la mooy intermédiaire digganteem ak boromam kon wóolu yàlla mu ngi noonu waaye suñu waaj sëntu baa gis nga lim daj <laughs> kooku moom defe naa ni boo si duggee sax gars yi dañuy daanu waaw sëñ Tuubaa lépp lu mu am wékku si yàlla moo ko may lépp lu mu am yaakaar yàlla moo ko may wóor sax lépp lu mu am jox boppam yàlla moo ko may bu wóor sax mais xam nga sëñ bi li mu daj ak fi mu jaar wallaay ndeysaan léegi nag looloo tax ba mag ñi ñoom seen mbir seen secret moo doon wóolu yàlla mooy si yàlla doyloo yàlla ba mu jeex takk ndeysaan bi biñ biñ ko waxee ni ko ndeysaan kaay wuutu sa bàyyi ci Lat Joor mm-hmm. maam ñëwal fekk maam Mor Anta Sali fii mm-hmm. ñu ñëw ci Serigne Touba mu am fanweeri at nekk ndaw toll ci buntu àdduna xaadima jaxate kala bind bii daal ni bilaadullahi atyabuha kajorun dëkk yàlla yëpp di ci dàkk mooy kajoor mooy kajoor ah? uh-huh. boo fa ñëwee di nga am lu la neex sa àdduna uh-huh. yooyu yëpp di nga ko am foofu la ñu wax Serigne Touba ni ko kaa nga wuutu sa baay ci Lat Joor uh-huh. mu am fanweeri at waaye wallaay ndeysaan gars yi daal di koy jaale góor gi ni ko nag kay wutu góor gi sa sa baay ci Lat Joor mu ni leen maa ngi leen di sant di leen gërëm sant naa leen bu baax ci li ngeen ma jaare sama waajur waaye man Serigne Touba ruus naa sama benn tànk di fekk morom bi may wuti beneen buur bu dul yàlla. malaaka yi di ko gis. di ma gis wóolu yàllaa ngi noonu. gaa yi génn daal ni ko kii moom xanaa ça va mu ni xaalul ya irkan yow bi salatini تاخذ جوائز الدنيا كل ما حين وانك فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راد غير العلم والدين ولست ارجو ولا اخصى سوى ملكي واخنا ني نما جنجال دم ووتي بنت بوري سو دمي لو بغي سي كارو من غو ام لب لو بغي سنتو وانين من لين سني بروم دوينا ما تا دويلو نako effectivement موني او كيف يبعثني حب الخطام الى جوار من دورهم روض الشياطين بيجي السهمني ان كنت ذا حسن او كنت ذا وتر دعوت ذا عين حبل الراي والشين ما شاء الله لما سخلا اك لما بغ دوما كو نيان كين كودول بروم عرش دك لا مودا خولال تاي تي ادنا ما نيا با نيويورك ñuy wax bamba day journée chemin épais mouride di marche and ak gouverneur bi tubaab bi defar café touba di bi mu am ci suñu borom mooy ci moom bañ a xool lenn ma ko may. kon yàlla nañ ko borom bi defal. seen Pape damaa nekk France dugg dugg si benn RER nii di dem di dem quoi ma gëmm nii rek. Euh, wallahi ma gént ñu ni maam Cheikh Ibrahima Fall. mooy Ababacar Siddiq si Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. wallahi ñu ni maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Ababacar Siddiq si Rasulullah sallallahu taala alayhi wasallam mais xoolal maam Cheikh Ibra Fall ni mu dëddoo woon yàlla mais dafa roy si sëñ Ababacar Siddiq mais bu daan jox Rasulullah sallallahu alayhi wa ay xéewal da ko daan jox ba du bàyyi dara këram même pas sa qu'il faut pour assurer la dépense quotidienne du lendemain Ababacar Siddiq da daan jox lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ne ko waa li nga maanaam koo bàyyil sa kër koo bàyyil sa njaboot mu ne ko yàlla suñu borom laa bàyyil sama njaboot loolu mooy wóolu yàlla jërëjëf suñu mag ñi si loolu lañ nekkoon. lu ñu am moo leen ko may. nañ leen roy bu ñu bëggee jàmm. lii daal mooy mbir mi. bu bëgg a dem daal xoolal si gars mbir mi nag sëñ Pape leen fi nekk. waaw da ngay ñeme soobu ñu fay la. waaw ñeme woo soobu woo toppal ki ñeme soobu ñëw ndax mbir mi gileem la ak sëfam. waaw gileem ak sëfam moom ñeme biti. dina fanaan biti ragal biti dina fanaan biti. kon ku yabu nga ñemee fanaan biti. Mhm. parce que mbir mi yombu àddina yomb yomb amu fi àddina bànneex amu fi àddina day geex te xolal lu dul fit ak audace ak fulla ak fayda mënul yóbbu nit fenn jërëjëf dañuy dañuy dem journal amul benn juróomi juróomi simili moo ñu dese amul benn am na ñu ma la envoyé xam naa nag sañse nañu moom <laughs> saa yi bamba léegi la dugg fii naan moom <laughs> ah, ah saa yi sañse ah. nag quoi ah. maître ma bàyyi la euh, juróomi simili moo ñu dese pour ñu dem journal ma bàyyi la rek lan mooy nekk kàddu gu kàddu gu mujj gi waaw kàddu gu mujj gi daal sëñ Pape du dara lu dul euh, gërëm sénégalais yi mhm.

dindi bouclier policier bi nek feulé autour du domicile Sonko ba nopi nak ñukoy ñaan mu am le sens de la hauteur comme nim ko amé ba renoncer à un troisième mandat qui est susceptible de brûler le pays kon lolu ñu ngi ci sante di sante yalla suñu borom mi nga xamni toujours moi wax leen ko ni leen Sénégal dafa am grandeur bo mhm. il sort toujours grandi des grandes épreuves et des grands problèmes mhm. yalla suñu borom sotural nañ mhm. di ñaan yalla suñu kilifa diiné yi yalla bàyyi leen fi Mm-hmm. ñooy suñu kiiraay ñooy suñu laytaay ñooy laytaayu réew mi sëñ Pape garab bu amul euh, ay reen du jebbi te réew mi ay reenam mooy kilifa diine yi mm-hmm. ñoom ñépp yàlla nañ fi yàgg te wér mm-hmm. nañu dolli worma dolli yar dolli teggin di naan yàlla réew mi jàmm xew si di ñaan yàlla suñu boroom ñi nekk ci prison yi ñi nekk ci hôpitaux yi ñëpp yàlla defal leen jàmm Sénégal c'est un pays exceptionnel mhm. Sénégal benn la ci àddina bi le Sénégal est un don de Dieu mhm. moo tax nag yore ko maanaam mënul yomb jërëjëf waaw di leen sant di sant ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy topp mhm. di ñu jàpp yenn saa yi gars yi ni ma da nga ni da ngay présenter candidature ma ni leen ah. man sama bët jël na Sénégal man Afrique Afrique ku ma ko joxoon ma jiite ko te man Afrique laa bëgg a jiite ku bëgg a jiite Afrique nag ndax jësit bu fàddee kay taxan defe ko doon sangu sa biiram war naa rees bu yàgg loolu mooy lan koo xam ni sa bët yaa ngi ko teg si Afrique Sénégal taxu ñu ñuy wax man daal ñu ngi nii bis bu ñu amee ku ñu jox moyen accompagner ñu wallahi al azim ñu lancé wu loolu laa bëggoon a di gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax mënoo jàngi bitim réew yàlla defal la nga am ñaari doctorat say maam côté yaay côté bàyyi di wëliyu mhm. sëñ bi nga bëgg réew mi am fit renoncer à un CDI aux États-Unis renoncer à une titularisation à l'université de Paris 8 ñëw Sénégal di ragal wala nga yokkot wala nga toog mel ni ku yor feebar bi wàlle duñ ko def mbir mi daal mu ngi noonu jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ayo maître en kontaan naa maître li nga sax rafet na nag ah, papa papa papa maître li mu sol rafet na de. di gërëm maa bëgg papa nga ubbi ñaari champs yi man ak maître nga may ñu papa shop bi parce que rafet na li nga sol rafet na. moom sëñ Pape na xam ni ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla. numéro téléphone am dina défilé si télé bi. waaw ku ma woo man dinaa la jox numéro téléphone am incha allahu taala. sant nañ ko gërëm nañ ko di gërëm vraiment ñëpp daal bàyyiwuñu kenn. Mhm. maa ngi ànd ak sama benn frère Idrissa gërëmati encore une fois di la sant xam nañu yow mom sama genn wàll nga sama xarit nga sama lepp nga dañoo bokk mission yalla nañu yàlla lafal cat dàqul ñu seetaane di gërëm soxna Anta di gërëm Mouhamed yi fi nekk waaw di gërëm soxna Fadiga di gërëm euh, as PDG bi nak mom mention spéciale gis nañ limi def ties à travers les Palais d'Or gis nañ limi def ties à travers la chaîne TS yal na ko fi yalla bàyyi yalla may ko sago gu mu gërëm nañ ñëpp jërë ngeen jëf. mi noonu moom mooy man nag xam nga su may présenté wu Papa da ngay da ngay da ngay dégg maanaam Pape Thioune journaliste disciple de de du du maître Abdoulaye Idrissa Dieye man mooy suma mooy suma ah. loolu laa nga wax parce man dama bëgg xam-xam te moom dañu koy jox bu baax a baax bu defee Papa ñu ngi sant Pape Shop Papa. Papa Papa Papa may bàyyee Papa nii di kii Papa man doo ko def ma ne sam bopp Papa kañ mel noonu nag <laughs> jërëjëf muy lire di ma di ma envoyé ñuy discuter yàlla xam na ko ayca mi ngi noonu pap waaw papa ayca pap shop mi ngi noonu numéro baa ngi noonu de jël leen ko 77 la 842 92 54 77 842 92 54 muy man mii toog ak maître mii toog ñun ñaar ñëpp yu yaa ngi rafet yii moo moo foofu moo ñu ko jox moom Pape Shop nekk fële ca marché central en tout cas ñu ngi koy ñaanal borom bi sàmm ko maître maa ngi lay ñaanal di ñaanal képp koo xam ne mi ñu doon topp rek dañoo war a dem journal léegi war a dalal aussi ki nga xam ne mooy le maire de la commune de Thiès Est ah muy Ousmane Diagne nga ko gaa yëpp xaar Bamba Bamba li ak euh, Adama ma Magnan mi ngi noonu bu ko defee euh, Omar jërëjëf Sobel jëf papa yàlla na nga dem màkk euh, di Jalaan yàlla nga dem Rome Euh, Maxime yalla nga dem Rome bu ko defé mi euh, émission entretien avec euh, thème bi di de la confiance en Allah dans le développement personnel ma dalaloon ki nga xamné docteur Abdoulaye Idrissé Dieye nek socio-économiste planificateur di enseignant chercheur titulaire d'un doctorat de sociologie à l'université Gaston Berger et d'un doctorat d'anthropologie à l'université de Paris 8 manam mom mi tok ñaari doctorat la di len sant di len ñaanal ngeen di am jamm ñuy am jamm ba mercredi ak jamm ci numéro entretien avec jërë ngeen jëf